allah tamit gars yi ci live Facebook bi ma leen di bëggee bu baax a baax waaye tamit xam ngeen tamit macha allah tamit ci biir Ndakaaru Njaay ak rek gars yi ñu ngi synchro rajo yi jàpp rajo bi ci quatre-vingt-seize point un waaye tamit euh, comme ni ñu ko jàppee biir Ndakaaru Njaay ak boo demee Kaolack noonu la gars yi def tamit macha tamit jàpp bi ci cent point quatre macha allah tamit euh, di teewlu tamit euh, rajo Leeral FM waaye tamit boo demee tamit Ziguinchor ñoom Samba Kandé ña nga tamit euh, yokku rajo yi rek jàpp ko tamit ci 93 point 1 Ziguinchor nga dugg tamit macha allah tamit biir Touba ba Diourbel ñoom tamit euh, euh, ñoom Mbacké gi ña nga jàpp partout rajo bi wër ngeen këpp nekk fépp di leer fépp ba mu leer nañ c'est la bare tamit ak Ngolo Percevant bi ko biir Pikine may bëggee bu baax a baax tamit euh, Mamadou Kane moom nga fële tamit ndeysaan ca diwaan tamit euh, Grand Mbaaw may bëggee bu baax a baax waa Grand Mbaaw yi Cheikh maa ngi koy bëggee bu baax a baax moom fële ca diwaanu tamit euh, Grand Mbaaw di bëggee bu baax a baax tamit Jos Junior ñu gën ko xam tamit ndeysaan ci Yoro Ndiaye chéri Astou Ndongo maa ngi koy bëggee bu baax a baax ma nga fële ca tamit rond point Grand Mbao borom alimentation Baye Karim yoro jëlal lii ma koy may nag may tamit ñeeñoo bala may say ah ñu Gitar solo ci guitare solo gi perlu ngey la ni guitare nak ay wax la déggal loolu. Thank you. destination Ndongo Lo ba tey destination vingt et une heures ngeen di ànd ak seen xarit di jëbëgu Ndongo l'international bi l'animateur incontestable doomu nday Wally Balago

Oi, Ay, miren, si el diablo hay Porque la vivienda quiebra, lá, ira es. Mata no hay é que se quiere llevar. In the middle of the gate, and a Samaya and I'm no neighbor. There's the meat, the meat, the meat. There's the meat, the meat, the meat, the meat. Don't forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, forget, Thank you.

頼むよ。 Muchos pescadores hoy quieren guardar. Mapari, mapari, mapari, patikale pi. Mapari, mapari, mapari, ya patikale pi. I am able to go. We come on off. We get a walk. And I want to start. Please stop.

Lord. Amen. loolu macha allah tamit train woy noonu ay équipe nawetaanu waa Pikine lañ soo bi nag ndeysaan macha allah tamit concert la woon biir Pikine mu woy ji tamit macha allah tamit équipe eh par benn set àndaan daal dañuy seet tamit macha allah tukulóor yi. waaye ba tey tamit xaj bu demul dikk. yow yu oote woon léegi rek boo exploité ci 88 628 02 02 rek macha allah tamit ma dugal la. nga jàkkaarloo man tamit euh, nga wax jox ma wax delloo la. ci 88 628 02 02. ñu dem.

We

ma ne ko rajo bi man rajo bi ëpp doole c'est rajo autrement rajo bi nekk fépp leeral fépp ba mu Kaulah gaya dengan da ko jàpp ci 100 point 4 waaye boo demee Ziguinchor gaay ñi nga ànd ak rajo bi ci 93 Thank you.

dukulore wilelli Thank you you ay ca mi ngi noonu tamit macha allah tamit di si jaajëf lu baax a baax tamit Mbacke Gueye nekk tamit ndeysaan mu fële ca diwaanu tamit Touba Mbacke waaye tamit ma siy bëggee bu baax a baax tamit sama benn tey ñu wax tamit Aster ma koy bëggee bu baax a baax di bëggee également tamit Badou Gueye waaye ba tamit ligne bi rek gars 88 628 02 ko extrait rek ma jël as tër nag macha allah tamit ñëw yi waaye rek soo bii may teg ni nii nii yow may as tër jëlal Ndongo Lo version live dina ndeysaan biir Alizé la mu ànd ci tamit ndeysaan ak waa groupe jàmm ànd ci tamit ak Assane Assane ci base bi mu ànd ci tamit ndeysaan ak Ousseyn Ousseyn nag euh, ci clavier bi. waye tamit ba on mën ko ex rek mën ko léra radio allo xamna naa tamit mën na ñëwaat rek ci 88 628 ex rek ma jël la. ndongo lo li nga doon. jëlal as as fofete as mani ko batay bi du changer bu dagul dik mbam ya do teng ligne Dogo Ka bi rek 88 la 628 02 02 Asteur Ligador Mbay Tama ci Tama ji jamono ji mi ngi tamit diwaanu la France Mbay Tama

riir moomu ngeen di dégg mooy baas ba teral nga te bàkk woo siga jang yulli bëgge bu baax baax nit Baye Mbacke Mbaye ay ca mi ngi ma koy bégge bu baax a baax di bégge tamit membre staff bi grand Mamour sama maître grand Mamour kontaane naa la

ayca bi ngi noonu tamit euh, di kontaane gars yi fi jaar bu baax a baax a baax di bëgg tamit également tamit euh, Abdou Mbow waaye nag xam naa on va enchaîner dugg tamit euh, dëkku Cheikh Diagne Naar muy tamit waalo ñu dug waalo war tamit Mauritania rek mais nañ dugg waalo ba si bëgg na son bu baax a baax tamit Ndeye Amy Dia kooku nag gaynde waalo la di bu baax a baax di ci bëgg tamit waalo yëpp on va enchaîner ak Ndongo Lo doomu version live ñu doxantu ñu doxantu son bi ndongo loo ngi ko wet ndeysaan biir waalo biir dagana way ci tamit euh, Omar Sarr ñu doxantu mu way ci tamit macha allah tamit diggante doomu baay mu ci tamit euh, ndeysaan mbay njaay doomu baayam ba way ci alaaji Cheikh Paate dimbalal yalla du andak mbay salan la Thank you. mari ko boo bëggee déglu musique fii la ngay déggee lii nga bëggee déglu ay ndongolow jàppal rajo leeral ci quatre-vingt-seize point un boo nekkee Dakar ak li ko wër waaye tamit macha allah boo nekkul Dakar nga nekk Kaolack man nga jàpp rajo leeral ci cent point quatre di ko déglu nga nekk tamit diwaanu Casamance tamit euh, macha allah mën nga jàpp rajo bi ci quatre-vingt-treize point un waaye tamit boo nekkee tamit diwaan Touba Mbacké ba Diourbel tamit mën nga jàpp rajo bi ci quatre vingt sept point nga nekk au niveau international tamit muy tamit bitim réew duggal ci digital bi bu la neexee nga def www point leeral point net nga dem tamit jàpp rajo bi en ligne wala tamit macha allah ma nga dem tamit euh, ci Facebook bi nga teewlu tamit suñu live nga dugg ci live bi di supporter di partager ah walo waalo nee naa la woy wi tamit macha allah buur lañ ko daan woyal dégg nga ndongo fa mu jëlee woy wa ah waalo waalo mu ni ko tey la waalo ay wala wala buur koy tooñ ma si bégee bu baax baax tamit euh, ami ci tamit euh, deux fois la yaay ami años y One more time. exercício externo. nga xool boor bi yéen waa góor bi yéen lay wéyal waa xoolal fii ani fayaay dafa jaaye soo dafa ñëw nondooy e déggu ma dara di ngeen ma xool boor bi nga xoolal góor ani fayaay dafa jaaye

We lọ. Ìgbésí alẹ́ lọ́nà follow bọ́ Capítulo 16, suivre waaye tamit ñu ngi bégg bu baax a baax tamit euh, Ndeye bu a baax di wax tamit gars yi du changé rek 88 a baax tamit euh, sama technicien Mouhamed Xaalim bu a baax tamit euh, Mouhamed Ndiaye moo koy bégg bu a baax xam naa tamit a baax tamit bu baax a vraiment mu ngi tamit di ñu tamit ñëpp daal vraiment visite yi ñëpp maa ngi di dégg baax a baax vraiment tamit ñu ngi déglu on va enchaîner ak beneen Ndongo Lo bii nag tamit euh, version live la tamit euh, doomu baay waaye bii nag mi ngi ko woy woon biir vidéo bi bii la jëkk woy ci live biir vidéo bi son bi macha allah tamit euh, ci percu yi grand Daouda Fall Diagne moo nekk ci percu yi ak tamit euh, Abdou Thiam lii biir bi dimbale woon Pikine lii la njëkk a ndongoloo bu baax baax tamit euh, ay la Fall di ci bëgg baax a baax maam Jogomaay ñooñu ay wóolare ndongo loo leen depuis démb ma leen di jaajëfal baax a baax ci déglu bi di bëgg baax baax tamit également waa Pikine waa Pikine deuxième revue la Pikine ku ci mel na Pako Dia maa ngi koy bëgg bu baax a baax ci déglu bi ma nga fële ca tamit diwaanu Pikine deuxième revue la tali bu bees Pako Dia jëlal Señor. de la radio 96.1 FM. de la radio 96.1 FM.

waaw. ay ca bare tamit mbokk mi tamit euh, xacc bu dagul dikk waaye tamit euh, demal rek nga tamit ndeysaan duy ji kër di bu bare bare bare nga mën a dugg fii ci bi rajo leeral FM 96.1 Dakar nga mën tamit macha allah ñu jàkkaarloo waxtaan parce que xam nga rajo leeral du ay caaxaan du ay fo c'est la rajo autrement mooy rajo bi xew mooy rajo bi man mooy rajo bi ëpp doole on va enchaîner ak ndongolo. ay ca ba mbokk bi su rek ma ko leer allo mbokk mi dafa rëcc You have called from gisee rek may ko leer rajo allo allo mbokk mi allo rajo allo ay ca mi ngi noonu Ndongo Lo tamit version live biir biddiw bi waaye beneen tamit gars yi inséré suñu inséré rek ma jël leen ci 88 628 02 02 mbokk mi leer rajo allo allo yaa ngi may dégg. ay ci mbokk mi leer rajo alo ay ca mbokk mi leer rajo allo Alumbo Kule Rajaro.

ak xarit di jël bëgg ndeysaan déggante bi neexul allo mi leer rajo allo allo yi maa ngi ziar père ci nekk alhamdulilah ok merci beaucoup jaajëf jaajëf xam naa sa sa père passal sa mu ñëw ci kanam waaw allah kay merci merci ay ca bàkkal ñu dem deuxième temps ba let's go li moom ay gaañ il faut ma indiwaat ko noonu il faut ma indiwaat ko déglu na lii gars yi ah li moom ay gaañ déglu na lii Amadou Amadou Gueye borom Guédiawaye ma ne ko reprise bi daf may gaañ reprise daa doy waar Mm. Ah. Guitar solo. Jésus at Wednesday's ko ba bu mu jokkoo kaa bi ko ex rek ma jël la ci 88 628 02 02 dans l'émission Ndongo Lo ba tey yaa fii ci rajo Leral FM rajo bi xew rajo bi man rajo bi ëpp doole ah. E aí eu me conheci, só que eu vou pra você, Papugai, papugai, ei! Da parada de parei!

ma ne ko ba bi changé bu mu jokkoo kaay bi 88 la 628 02 02 allo Leral allah mbokk mi soo ñëwaatee rek xaj bu dagul mu ah

Я девку, я вам где? ba tey leeral rajo allo USR rek ma jël la. Cheikh Thiam. ci loo nekk yaa ngi sur la rajo Leeral FM. waaw maa nah, ngi kontaan ci émission bi. jaajëf jaajëf jaajëf Cheikh Thiam. moo tax ne waa Arabis. waa Arabis yaa ngi oote diwaanu. Kaolack Ndangaan. yaa ngi oote diwaanu Kaolack Ndangaan. waaw Mborom. dëgg la maa rajo bi mi ngi leer foofu. ay ca Cheikh Thiam ba tey ñi koy jaajëfal bu baax a baax ci oote bi moom Cheikh Thiam jaaroon fi mu ni mi ngi ko may waa Arabis waaye ba tey Cheikh Thiam mën nga dikkaat rek ci cent 88 628 02 02 macha allah tamit nga may ñi nga bëgg a may dédicace ñëpp waaye nag suñu mbokki waa Kaolack yi ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax a baax xam nga ni boo duggee Kaolack rajo Leral rek la ñuy déglu. waye batay mbok mbokk musul naan bi da radio allo allo oui ya wow mbok maa ngi lay ziar ya. tour bi nakar la ak foo ñu oowee Dakar fan ci Dakar ah boo marisé deug la ma baye rek nga may ni nga bëgg may dédicace waaw nañu may may Pape bu mu wooyee. bu mu wooyee ban. bu mu wooyee ah, Pape Pape. ban ban ban son la ci live la wala. allah après la ko xoolal. mais kan kan nga koy may kan kan nga siy dëggal. ñoom Tafa Jaw ñoom Seeba ak. ñëpp daal xanaa safar xanaa apprenti bis nga. waaw. dëgg la dëgg la ñu ngi leen bëggee bu baax a baax sama gars yooyu. waaw jaajëf waay gis nga incha allah léegi. waaw yokkal dëru bi sama gars jaajëf. ayca maa ngi bëgg bu baax a baax tamit sama mbokk yi doon oote diwaan tamit boo marisé mu ni may ma ndongoloo tamit euh, Pape xam naa tamit dinaa ko xool xam naa tamit je parce que bi mu woyee Papa Ndiaye di woon lay lay lay lay bëgg expliqué ndongoloo xam naa tamit macha allah bii daw nii xam naa neex na la jëlal nga jox tamit euh, say xarit ak ñëpp. ñiy déglu maa ngi bëggee bu baax a baax tamit euh, apprenti bus yi ak tamit sëfaru euh, bus yi xam nga ni man chaque boo duggee tamit ci garage jamono ji boo duggee boo marisé gaa yi jege seen kuréel tamit rajo yi di jàpp tamit rajo Leer FM di ko di tamit bëgg émission bi mag bii di émission Ndongo ba tey nga xam ne bi macha bu tàmbalee rek ndaanaan yëpp moom la ñuy déglu nee naa la rajo FM c'est la rajo autrement waaye tamit émission Ndongo Lo ba tey c'est émission. autrement chaque jour tamit macha allah nit ñi ma waaw bëgg yow moom ay ndongo loo rek ngay animé pourquoi pas doo teg ñeneen ñi ma ne kon ndongo loo yi may teg di ko animé loolu sama slogan la waaye tamit macha allah tamit noonu laay tamit tegee ñeneen ñi waaye tamit bi dafa yaatu ku nekk slogan je pense que tamit lu fi. artistes yi way bëri na trop dañoo gis tamit ndeysaan macha allah boo demee Jamaïque fekk fa Bob Marley waaye boo ñëwee fii Sénégal njaay tamit te macha allah boo fi jógee ba tey tamit liñ fi macha allah tamit dara dañu fi ay mérité woon bu baax a baax tamit fële ci diwaanu Pikine ñu tabax fa dara lu mag a mag a mag dëppee ko Ndongo moo tax tamit di jël Ndongo rek tamit indi émission bi di émission Ndongo Lo ba su tàmbalee rek macha allah naan ñëpp a ngi ñu déglu c'est la ak animateur incontestable ah danga ko Ah. Radio Bijou, Radio Se la radio autrement. C'est la radio partout. <laughs>

ca mi ngi noonu di jaajëfalaat gars yi bu baax a baax vraiment tamit euh, di bëgg ñëpp waaye tamit euh, di bëgg ñi fi jaaroon ñëpp di wax tamit ni macha allah à l'instant nii il est exactement vingt heures trente quatre on va enchaîner ak tamit euh, doo bi nag version live la biir tamit tropique muy tamit tamit ba tey son yi doo dégg feneen ful fii rajo. doko deg dégg so beugé bëggee déglu ay son dongoro jappar radio leral moy radio bi xew moy radio bi ëpp doore c'est la radio autrement Leral rajo 96 point 1 FM mu ci online bi rek su accès 88 vingt 628 02 02 rek ma jël ko seen émission Ndongo Lo ba tey c'est tous les dimanches de 19h jusqu'à 21h ki leen koy defaral di seen xarit di jëbëbu Ndongo l'international bi l'animateur incontestable doomu ndey Wally Balago Seck loolu la yàlla def saa seen bopp dee ba ci ñemeeg ci ñoom lépp a ñu kat daara lépp a ñu si ñoo daaw ah des ginnaaw looloo dal ndox maa ngay wanagaan nar naa nar naa kee yee Doo waalo doy na jom yaroo waalo doy na fit musu ñoo daw si ñoo des ginnaaw sama

waaw waaw. inshallah xaaral ma xoolal la ko léegi léegi nii bu soobee bi jeexee. waaw baax na waaw. fàttali ma tur bi tur bi naka laati. waaw baax na yëpp waaw loolu yëpp yàlla yàlla lay dund nag ginnaaw bi. dëgg la yokk leen rajo yi rek synchro rajo synchro leen rajo yi. waaw baax na waaw. jaajëf jaajëf jaajëf mbokk mi. jaajëf waaw. ku def lu lay gaari. dëgg lay wax lu lay. fii ku fi def lu rëy ñu gewal wax la lu rëy bi ma demee waalo jàng naa ba xare waawa nguur gi am laay gëy ñaanal waaw mu balaa ngaa ko nga balaa ngaa xam ñi la bëgg mbaa ñi la bañ nga nekk ci ay trop trop mbaa ay difficulté loolu lu wér ah waaye ba ne tamit moo ko mi jàll rek tamit ñaan tamit Mor Sow tamit Papa maa la bëggee. xamna tamit euh, damay tamit jeexal ko tamit son do ndongolo tamit euh, Papa ndjay bu mu tamit euh, diwanu America mom la ñu rek juste tamit jox ko ko parce que fii moom macha allah rek waye xamna naa ma yokkul rek ñëwaat borom plan. ndo nga ñëwal ci borom plan ak borom Pastef. nga wayal borom Pastef ak borom plan. ah. batuma ñaar ñi. Borong pala, borong borom borong borom plan say dafa borom Borong dafa borom Pastef doo ànd ak moom borong Europe borong mi daw waaye borom plan mën nga kaa yóbbu bitim rew ànd ak moom mu nekk sa musicien ngeen ànd dem ba Europe bu ko neexee day abo mboy gi di fes dem yoonam kooku tamit ndeysaan borom tamit plan la borom plan mooy def yooyu waaye tamit ndongo mu ni borom Pastef du daw du daay kon macha allah tamit yàlla nañu yàlla may Pastef waaye tamit mbokk mi jaar rek ñaan tamit ndongo lu Papa Ndiaye xam naa dama ñëw juste biir ndeysaan macha allah tamit jox ko mbokk mi jëlal lii a ah. mbokk mi jëlal lii di ko may tamit euh, apprenti tamit euh, bis jël leen li maa la bëggee lii nag macha allah mi ngi ko woyoon biir Amérique ànd ci ak euh, waa groupe jàmm ndongo loo tourné Amérique am ba ndeysaan euh, ci clavier bi en même temps tamit Ousseyn xam ngeen ne tamit euh, tourné ndongo loo Amérique ba ba mu demee tamit macha allah tamit am benn guitariste bu àbb mooy nga daal daw. loolu macha allah tamit mënul ñàkk ci tournée ah Ndongo Lo Papa Ndiaye Géwël moo ko jëkk jox micro mu moo tax Ndongo Lo ne ko fii man Ndongo fii Ndongo Lo version live Papa Ndiaye Géwël li ne ndeysaan biir Amérique tournée Amérique ba ah Amérique Ousseyn Ousseyn seedeel loolu ñu dem ak Assane Seexu yàlla bi waaye ndeysaan boo ci amee ko mel ne Jiriña wala tamit Abdou Thiam wala Baye Demba ñooñu duñu daw duñu daay mbaa am ku mel ne Solo Touré kooku du daay Papa Ndiaye jiwal moo jëkk jox tamit mi ko rondongo row ni ko woyal moo tax tamit ne saan ndongolo tamit euh, fàttewul démb bi mu demee ba taxaw bi muy tourné Amérique dafa yóbbu waa groupe bi yóbbu yóbbu ba yóbbu DJ ca la njëkk a passé ne DJ boobu ñu wax DJ Cross yóbbu ko amerik Amérique yóbbu ñoom Papa Ndiaye ak ñëpp keroog ndongo loo tourné bi daal yóbbu ba DJ ah So, Filatore, filatore, filatore, tu vuoi filatore. Wally Balago Seck Saraba xam naa nag tey moom laay ñëw rek tëjee pas parce que à l'instant nii il est exactement vingt heures quarante six il nous reste euh, euh, xam ngeen tamit seen émission Ndongo ba tey vingt une heure la ñuy jeexal waaye tey rek damay ñëw tamit euh, indi son Wally Balago Seck Saraba Saraba bi rek version live moom laa ñëw juste tamit indi xam ngeen tamit ndeysaan di ci bëgg ndongo fu ne lay feeñ fu ne lay fël bii laay ñëw tamit macha allah indi rek jeexale ko tamit ndeysaan li des tamit ci animation bi ak tamit le king of the king de la musique sénégalaise muy tamit Wally Balago Seck sama xarit sama sama féete sama séddoo parce que nee naa tamit ndeysaan kenn ku ne bëgg jën na daw ba dee ngir ñi la bëggul ngir ñi santirul li ngay ma siy bëggee bu baax a baax tamit euh, Daba juuf di tamit euh, rakk ci Thierno Diouf ndomaloo way ko ma nga dëkk nag euh, bu bees tamit ko cere dafay jëlal lii ba tey tamit euh, balaago sekk mu ngi ci way tamit euh, waalo waalo yi waalo waalo yàgg naa am ndam ay ca mi ngi euh, dans l'émission Ndongo Lo ak tamit faramaaren bi xam ngeen tamit ndeysaan bi tamit ndeysaan mooy tamit fan su Ndongo Lo dafa bëgg Ndongo ma si bëggee bu baax a baax Faramaren yëpp di si bëggee bu baax a baax tamit euh, Idali di tamit euh, Bayla Pikine ak maam Jogumaay yi ñu doxantu deuxième temps ba nañu yàllay baal suñu yàlla baalu du baax

lu am solo la wax fii ndeysaan li mu wax ni tamit macha allah tamit papa Ndongo moo ko daan wax nee na ki tooñ muccul ay xeetu bon bon lay dajale te tamit ndeysaan weddu du ragal setal sa der la ki mënul yàq day wax lu ñaaw boo leen déglu doo dem wol leen ginnaaw rek dem. Dale, po. Ya llegó, ya también. Daylight, my sister. Ya llegó, ya también. I don't want to see

Yalaju Katwesi Aster ñemenaa la waaye nag macha allah Aster ñëw yi war naa gaaw ñëw yéen daal dafa mel ni macha allah Mbacke leen gaaw. ah ki tooñ muccul ay xeetu kon mon lay dajale let's go